ginnaaw bi ñu gisee ni am na ay jafe-jafe yu bëri yi nga xamante ni nii transitaires yi ñu ngi koy dund ci port bi ci diggante plateforme yu yu bees yu ne ay xarala yu bees yi nga xamante ni teg nañ ko ci port bi lu ci mel ni aussi tamit Orbus Infinity ñu gis ni euh, ay jafe-jafe la yoo xamante ni jàpp nañ ni am nañ ci ay solution te ñi koy koy tëral tamit am na yenn ingérence yoo xamante ni ci côté prix bi ci côté aussi timit euh, rapidité liggéey bi jafe-jafe yi ci nekk yëpp ñu mën ko tënk waxtaanee ko pour mën a teg ko sur la table pour ñu ñu mën a toog xool naka la ñuy trouver solution par rapport ak jafe-jafe yooyu parce que ci wàllu prix bi gis nañ ni euh, dañuy fay côté bi Orbus wëlbati ko fayaat fekk Orbus Infinity te lépp nekk ci benn plateforme donc ñu gis ni loolu war ay ay ay ay manque à gagner la yoo xamante ni ay man financière bu mag la boo xam ni euh, transitaires yi ñu ngi koy subir opérateurs économie ñu ngi koy subir teg ñu gis ni jaaduwut ñu war a mën a taxaw euh, démontrer ko wan ni lii jaaduwul yooyu bokk na ci yi nga xamante ni nii moom la lañ doon souligner. bokk na ci aussi tamit wàllum dématérialisation bi ndax bu ne nee dématérialisation mooy que ni dañuy éviter maximum de contact avec les usagers. et l'administration douanière mais gis nañ ni seetlu nañ ni dématérialisation bi am na mais ba léegi contact mi ngi exister donc yooyu yëpp ñu toog di ko waxtaanee pour mën ñu mën ci trouver des solutions yu douane yoo xamante ni dina mën a euh, jëmale liggéey bi kanam te dina ko ga mën a gaawal pour ñu mën a pour euh, ñu mën a port bi mën a nekk port bu compétitif par rapport ci sous région bi. liggéey bi moom boo xoolee euh, douane def na ay jéego yu bari ci wàllu. Euh, système gaynde boo xoolee système gaynde bi ñu doon liggéeyee ñun euh, bi ñu bi ñu yegsee ci côté Covid bi au niveau des compagnies ñoom teg nañ digitaliser nañ seen ay seen ay structure donc boo xoolee foofu dématérialisation dugg na donc Orbis ci biir plateforme yooyu ñoom ñu indiwaat beneen plateforme boo xamante ni dafa mel dafa similaire ak yooyu ba pare dina ko jaay parce que tey ji compagnie bi bu fekkee ni léegi booy facturer da nga koy dañ ko digitaliser booy fay dañ ko digitaliser donc gisuñu nécessité bi foofu noonu ñu war ñu mën a jaayaat beneen produit boo xamante ni dañ koy jaay à trente cinq mille francs ou bien à trente trente mille francs par TC par conteneur kon dañuy gis ni loolu euh, daanaka arnaque la wala imposer nañ ñu loo xamante ni gisuñu dëgg dëgg dëgg utilité bi wala njariñ li. comme euh, dañuy fay service boo xamante ni existé na ba pare. mooy Orbis Infinite parce que Orbis 2000 am na ba pare ci biir Orbis 2000 ñu créé waat beneen plateforme muy Orbis Infinity. non li ñu bëgg mooy ñoom ñu jàkkaarlu ñu ñu ñu mën a toog waxtaan suñu biir li nga xamante ni ay rëq-rëq la ak li ci dul yoon ñu teggi ko parce que tamit loolu dafay ajouté wu ci panier de la ménagère parce que day ajouté wu ci coût bi te ñun ñëpp ay consommateurs lañu donc bu ñu waxee ne dañoo bëgg dañoo bëgg a attaqué euh, cherté des prix kon waruñu. kenn warul xalaat di créer loo xamante ni day yokk man financier wala day yokk euh, prix d'achat bi nga xamante ni moom la commerçant bi di jëndee pour jaayaat yooyu aussi tamit dañ ko war a dañ ko dañ ko war a waxtaanee ba rëq-rëq yooyu noonu ñu dindi ko waaw loolu moom bokk na ci suñu ay li sabab suñuy waxtaan. Orbus lu existé la ci Sénégal euh, nit ñi daan ci jaarelee. seen ay déclaration prélable d'importation ñu leen daan ci facturer alors ñu dem ba ci yàgg directeur général des douanes bi fi ñëw bees daal di xëy suba daal ne euh, sénégalais yëpp képp kuy génneeti xaalis wala ngay jënd lu ëpp cinq cent mille francs da ngay euh, émettre euh, déclaration préalable d'importation ñun loolu lu remettre ko en cause parce que réew mu nekk dafay évoluer ci an lay def ba gën a avancer ci xarala par faille yi nga xam ne ni day am ci administration bi ñu mën di ko recadrer alors euh, léegi ñu xëy suba ñu imposer ñu nañu ñu euh, bi bu ñu nee dématérialisation dañuy éviter ab contact entre isage bi ak autorité bi nga xamante ni moom moom lay liggéeyal maanaam système dématérialisation bi mu ngi fi mais contact bi mu ngi mel ni tulli ak àllee tous les jours dafay am li nga xam ne ni daal moo fi changé mooy document yi ñu daan jël di ko yóbbu ci douane bi changé na mais pratique bi changé wul peneen bi mooy maanaam ñu xëy suba ñu wax ñu ne dañoo créé lu ñuy tuddee orbis infinity maanaam orbis in maanaam orbis infinity mooy ñun suñ masaana jël euh, suñu connaissement ñu dem ci compagnie bi ñu facturer ba pare dañuy jox li ñuy tuddee EAD EAD boobu moom la ñuy jël dem Dubai pour wër maanaam pour fay léegi ñoom ñoo ñoo wax ne léegi bu ngeen demetee ci compagnie bi ngeen fay bu ngeen fayee ba pare da ngeen ñu koy euh, ratachel ci Orbus Infinity bi ñu yónnee leen BAD bi ngeen soog a mën a fay Dubai te Orbus moomu noonu maanaam nee nañ ab GIE la te ñoom euh, GIE bi ay nit ñoo ko moom ñun nag laaj nañ leen kan moo ko moom indi nañ ñu ab note nee nañ état du Sénégal moo ci am quatre-vingt-dix-sept pour cent exemple bi ma leen di jox ci loolu mooy euh, état an lay amee ci ab société quatre-vingt-dix-sept pour cent te état ba moomeewul directeur ba bu fekkante ni conseil d'administration ba sax ñuy wax ne ñoo ñooy namee directeur ba mais ñun dañoo am ak sikk sàkka ci ñoom liñ ñuy wax parce que dañ ñoo yàgg a wax loo xam ne ni amul léegi beneen bi ma ci dikkee mooy soo évaluer euh, taux bi nga xam ne ni mooy dugg ci Sénégal ci ay conteneurs par an day mat neuf cent mille conteneurs neuf cent mille conteneurs exemple nga ne cinq cent mille yi euh, euh, ay ay ay ay mise à mise la consommation la mais quatre cent mille ay exportation la alors maanaam soo ko multiplier ak li ñuy fayee ci Orbis Infinity bi loolu xaalis bu bari la xaalis bu bari la te xaalis boobu dañoo bëgg ñu leeral ñu ko kan kan ñoo ko moom kan kan ñoo koy séddoo parce que man dama gëm ne xaalis boobu état du Sénégal jotu ci man loolu laa gëm te loolu laa ci yaakaar te jusqu'à preuve du contraire gëm naa ne duñ ma indil benn argument parce que ki nga xam ne nii moo ko jiite biñ ko laajee tey ci ab ab télévision tey umu demoon biñ ko laajee xaalis bi kan kan moo koy séddoo indiwu ci lu leer te du ci mës indi lu leer ñu ngi sàkku nag état du Sénégal ñu yónni les services compétents yi nga xamante ni dañuy dem ci institutions yi ñu defa def inspection ñu ñëw ci li nga xam ne nii mooy Orbis de 2000 ñu audité ko parce que ñun ñi nekk ci biir port bi dañoo soxla mu leer. ñi may waxal mooy compagnie maritime yi nga xam ne nii ñoo nekk ci biir Sénégal moo xam MSC la wala Maersk Line wala APAC wala kum ci mën a doon boo demee ci Côte gii ñu nekkal ay dëkkandoo. soo fa demee di fay ay sirasari ak ensinance neuf mille cinq cent la fii ci Sénégal ñoom ñooy créer seen ay prix bopp kii dalay facturer ci vingt cinq mille kii facturer la quarante mille kii facturer la euh, vingt mille kii facturer la quinze mille te loolu dañoo gis ne jëkkul jaaduwul beneen bi mooy Dubai Port ay at la am ci biir Sénégal di fi gagné ay milliards seen comptabilité nekkul ci biir réew mi. ñi ngi wax son excellence président de la république na xool poor bi premier ministre ñu ngi koy wax ne na xool port bi li fi nekk ci ak càcc ak jubadi te ay ay ay yeltin esonoo di ko ànd ak ay sénégalais di ko def guddi ak bëccëg loolu dafa jot pour mu leer te moom moo moom moo ñu woo ci jub ak jubanti ak jubal. te sàcc ci nekk ci réew mi bari na lool nag. am nañ ci attente bu baax a baax a baax parce que tey ñu ngi tënk benn mémorandum boo xamante ni bu ñu ngi ciy liggéey def nañ ay commission yu bari li li ñu xalaat que ni ay rëq la ci port bi xam nañ ko ñu ngi koy bind nañ ko tënk ko. lii nga xamante ni mooy solution tamit bind nañ ko te dinañ ko soumettre autorités yi dinañ leen jox dinañ jox autorités yi mémorandum bi ne leen ñun liggéey nañ ci parce que bëgguñu rek nekk di wax pour wax nii. mais dañoo bëgg li ñuy wax ñu liggéey ko techniquement ba nga xamante ni bu ñuy jox autorité bi li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe port bi ak lii solution ñu tënk ko ci benn mémorandum boo xamante autorité bi dina mën a xam ni lii mooy problème bi mais lii lañ leen proposé lu koy saafara